tey wax ci dog bii nag kuy julli ni war a farloo ci teewlu màggaayu boroomam ak teewlu julli gi nga xam ne moom lay julli ci kanam boroomam mu ne boroom al axdari yi muy abdurahmaan wax na ca biir al ne julli day dafa amee leer gu rëy rëy gu màgg a màgg mu ne nag koo xam ne boo dee julli da nga ànd ak teewlu màggaayu sa boroom ak jëf ju màgg ji nga koy defal leeru googee nekk ci julli day tàbb ci sa xol daldi leeral sa xol sa xol daldi leer mu nekkoon nag boo nee maa ngi julli di deyaaleeg saa boroom fexeel ba génne sa xol ci àdduna ak lépp li ci biir àdduna sa yitte jépp nekk ci fugloonteeg sa boroom maanaam fugloonteeg sa boroom mooy bàyyi xel sa boroom bi nga xam ne mom nga taxaw fi kanamam te nga ne moo la tax di julli sa yitt jëpp daal ne jëm ci sa borom ak julli gi nga xam ne moom nga koy jullil nga fàtte àdduna ak lépp li ci biir àdduna mu ne daal na la wóor ne julli gi lépp lépp ak toroxlu la ak màggal sa borom la ci biir ak ci biti moo xam jëf yi jefle, cër yi di ko jëf la ni ki sujjoot ak taxaw ak rukkoog siggeeg yi deme noonu ak li làmmiñ yi tudd ci sàbbaal ak woo sa boroom ak tudd ko ci tudd màggal ak moom daal jàppal ne lépp loo xam ne lu cër yi jëf la moo xam làmmiñ mee koy wax moo xam cër yi koy yëngatu lum ci man di doon rek ak màggal la gooy màggal sa boroom sa boroom bi nga xam ne mënoo fexe mukk ba jox ko àqam kon nag julli noonu la màggee nga xam ne dañoo seet mboolem xeeti ni malaaka yi jaamoo te séddoo ko kéeféete woolee kéeféete woolee ñu far boole yépp ci julli nga xam ne boo jullee rek màggal nga sa boroom ndegam defe nga ko na ko war a defee màggal nga sa boroom mboolem xeetu màggalin yi nga xam ne malaaka yi daañu ko ko màggale mu ne julli daal fonk ko lool ndax xamal ne mboolem xeeti jaamu yàlla yi moom julli moo ci gëm gannaaw bu gëm jàllee gëm ci lislaam bu jàllee rek julli moo gën a màgg ci lislaam kon na ko fonk lool bul bàyyi nag seytaane muy foyee sa xol bo dee julli fu ne mu fay jëmale sa xol loolu boo ko defee da nga am yaraange ndax seytaane moom sab noonu la boo xam ne bànneex nga waran am ca leerug julli ga moom la bëgg nga ñàkk ko sa xol fat dalitonis, di keris, lëndëm këriis loolu rek la bëgg a yóbbee sa noon boobu nag kon dee ko bàyyi xel boo dee julli bul ko bàyyi mukk mi fooyee sa xol mu ne kon maa ngi lay dénk ko dénkaat li fekk yaa ngi ci julli gi nga saxal ragal sa boroom mooy bàyyi bàyyi xel sa boroom ak ni mu màgge ak yow ni nga xeeboo di jàmb doyadi doyadi su ko defee nga wan gannaaw lépp luy àddunaag mbiri àddunaag lépp lu jëmul ci sa boroom rek di jëmul ci julli gi rek fàtte ko mu ne julli kat suñu boroom nee na inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli day dox digganteeg waajee julli day dox digganteem ak lépp luy ñaawteef ak lépp lu bon mu ne waaye loolu kat nee nañu balaa jullee def loolu kay julli sàmmoonteeg màggaayu boromam sàmmoonteeg àq julli ga taxaw ca ba mat loolaay tax kat julli ga dox digganteem ak lépp lu bon ak lépp lu ñu taamoot waaye julli goo xam ne rek naa ko def mënuma koo ñàkk def kon naa ko def jóg fi rek amu ca genn teewlu ak genn magal boromam mom dana ko wàcc rek farata ja waaye du tax nak mu am ca njariñ la taxawon ñuy julli mu ne nak doomi adama dañ yow doole te mi ab nonam ak bakkanam ak ak aduna di ay nonam yu am doole mu ne kon da ngay dimbalikoo sa borom ñaan ko rek mu dimbali la ba nga man ba nga mëna matalé ak julli ak yi mu farataal ci yow ak la mu taamu ci yow ndax yàlla moom ku mu dimbali rek lépp lu la jafe woon dal di lay yomb lu yàlla yombal rek mu yomb lu mu yombalul rek mooy jafe